allo asub allo ku baax maa ngi ziar waaw asuburi laa doon woo ah, daa génn de ah daa génn bu bu bu bu ñëwee nga ne ko soxna maam xarit nee na fay na ay nit dix million pour ñu dagg sa bopp na maa sa tànk ne ko pare naa fu ma ko fekk dinaa defanteeg moom mais wax na mbëgg ma ko làqu ma ko